ñëw évoqué je pense l'article l'article 42 bu constitution bi moom la jël dogal ba tax mu abrogé le corps électoral bi nga xam ne moom moo waroon sumb élection présidentielle est-ce que aujourd'hui le président de la république décision bi conseil constitutionnel jël ñenn ñi jàpp nañ ne mën na jël article 52 bi koy jox le plein pouvoir pour que mu mën a woyal doxal et bu boobaa ñu mën a wax ne à partir du 2 avril peut-être que il n'est plus légitime non non non non non l'article 52 n'est même pas applicable ne ci situation boobu. article 52 kay day wax bu jafe-jafe amee s'il y a une menace grave et immédiate sur le fonctionnement régulier des décision prise par euh, l'exécutif et les législatives le judiciaire ñëw censuré ko nekkuñu ci crise institutionnelle Ngouda on n'est ni en crise politique ni en crise institutionnelle encore moins en crise de régime le conseil constitutionnel fonctionne l'assemblée nationale fonctionne donc voilà tout fonctionne normalement il faut pas aussi que ñu wax loolu noonu donc non l'article 52 amu fi place situation bi ñu nekk dafa am lu ma waroon rebondir mais man pour man cette violence là comme ni ko Elimane waxee c'est une violence d'État et un État violent risque d'être livré à sa propre violence et laissé à lui-même loolu moo leen dal tey parce que la pire des violences c'est celle qui porte atteinte à la souveraineté du peuple vous pouvez pas venir une élection comme ça rek sur ces soupçons et cetera ñu ne dañuy donc arrêter élection bi conseil constitutionnel rappelé na ko wax naa ne la jurisprudence bi même moom li muy wax sur la continuité la sécurité kooku c'est une jurisprudence bu mu waxoon en deux mille vingt et ne moom même bu amee quatre membres dafay dafay dogal ñaari juge la ñu jiiñ te sax c'est des soupçons la te ils ont la présomption d'innocence donc cinq yi sax mënoon conseil bi mënoon na continuer kon gisuma woon lan moo tax ñu mun ñu daggal suñu processus électoral il faut que à un moment donné qu'on respecte les institutions de ce pays ça veut dire ñoo ko def dans l'article 92 les décisions du conseil constitutionnel s'imposent erga omnes beneen bi ci topp aussi l'autre violence c'est celle qui est faite tout simplement à l'économie du pays aux Sénégalais wax wax na ko du moment que donc voilà dañuy couper les données électroniques dañuy couper mais loolu euh, d'ailleurs on le fait par des communiqués et le ministre ne peut pas le par communiqué le ministre ne prend jamais un amul amul fenn fu ñu bind ne ministre bi war na mën a jël communiqué am pour ne moom données mobiles yi da koy da koy da koy suspendre amul fenn ça n'a pas de base légale loolu dama bëgg mu leer léegi nag c'est-à-dire tout simplement il y a pas de crise au Sénégal maintenant on est dans une situation où les candidats concernés ils ont des droits acquis et ces droits acquis là relèvent de cette décision du Conseil constitutionnel ñooñu dañu leen a bàyyi ñu doon candidat et ñoom dañoo concourir pour être candidat cest dire que tey jii nii conseil constitutionnel beneen chose bi mu ñu wax mooy même moom rappelé na ko c'est-à-dire que à la kulli ali élection bi dañ ko war a tenir avant que ñuy génn à la date de du 2 avril 2024 parce que suñ fa génnee on va être dans l'impasse maintenant dama koy wax bu ñu génnee date 2 avril on reprend tout c'est ça. on reprend tout maanaam. même révision bi sax mën nañ ko reprendre mais on reprend tout c'est-à-dire du parrainage jusque donc euh, à la euh, comment dirais-je à la décision bi établir la liste des candidats su ñu génnee 2 avril moom dañuy reprendre tout le processus avant 2 avril maintenant 30 jours avant l'expiration du mandat foofu bu ñu fa amalee élection bi mooy les candidats retenus ñoom ñooy dem te loolu le conseil constitutionnel wax parce que le président de la république on l'a pas invité à sortir du délai constitutionnel on l'a invité à respecter le calendrier électoral maintenant lenn xam naa ko l'identité constitutionnelle sénégalaise repose sur une démocratie de consensus Elimane wax na ko wax na ko c'est ça en fait parce que tey fi ñu toog nii il faut mu am concertation parce que président de la République moom ci boppam sax mënu la jiite woowul ñi xam ne ñooy ay candidats wax ak ñoom mais par contre même ñoom suñu waxtaanee seen biir dafa am deux consensus yoo xam ni il faut les distinguer il y le consensus politique et il y a le consensus démocratique consensus politique bi mooy même ñoom acteurs yi li ñu nam ak consensus démocratique li peuple bi moomal boppam parce que élection bi peuple bee ko moom cest dire képp ku ko li moo tax élément li mu wax je confirme parce que kenn na amul droit di porter atteinte n'est-ce pas à la continuité de notre processus quels que soient les éléments dañu waroon ni ah am na mais le président de la république loolu moo tax ñi nga xam ne dañu doon campagne ñu leen di jàpp di leen dóor et cetera ce sont des actes graves parce que am nañ ci droit code électoral bi moo leen ko may léegi nag maintenant te ñu ma man dama jàpp ni donc le Sénégal a toujours eu ce génie là boo xamante ni donc là où les autres utilisent des armes et cetera comme on l'a dit nous avons utilisé notre intelligence nos textes et mais par contre il faut être ferme sur les principes Et le premier des principes, c'est la volonté du peuple sénégalais et la souveraineté du peuple sénégalais doit être respectée. Parce que tamit su fekkee ni pousse nañ élection bi ñu demaat ñu ne dañu reprendre processus bi <laughs> ñi bokkoon ñi nekk candidat nii mën nañoo dem du ñu nekkaat candidat <laughs> on crée un autre problème c'est-à-dire loolu aussi donc il faut ñu xool ko moo tax ba nga xamante ni tey jii nii décision conseil constitutionnel bi mu wax nii ça a un caractère impératif mooy on est toujours dans le délai constitutionnel parce que yeggaguñu ci trente jours avant l'expiration du du du du du du mandat du président en exercice. Mhm. te article 31 loolu la wax ça veut dire que ba tey jii nii mën nañ ci jàpp délai boobu mais le conseil constitutionnel dem na ba bàyyi na sax wàcc na ci ay prérogatives am. mais man dama jàpp ni tey jii nii la question elle tellement impérative que dafa waroon a wax sans délai normalement le président de la République dafa waroon a xëy wax ak acteurs yi wax ak candidats yi jàpp datu élection présidentielle bi mais fii Sénégal la nit ñi dañuy waxtaan yàgg nañu waxtaan acteurs politiques yi yàgg nañu waxtaan seen biir mais par contre la souveraineté du peuple sénégalais mooy mooy joxe mandat moo koy rocci te moom rek moom rek moo am sañ-sañ ni kii mooy président te à partir du 2 avril 2024 on doit élire et loolu mi ngi ñëw ba tey c'est-à-dire nan ngeen koy accueillir la légalité la légitimité du président de Macky Sall au-delà du du 2 avril nit ñi jàpp nañu ne amu ko pour continuer et loolu mënul indi peut-être li ñuy wax sax naan cette crise institutionnelle aujourd'hui man mas njëkk jaaxal mooy j'ai comme l'impression que euh, même l'opposition beaucoup de gens dans ce pays se trompent d'adversaire vingt et un candidats yi président Macky Sall bokk ci. oui. ñoom ñu tey képp ki wax président Macky Sall lay wax président Macky comme s'il était candidat la a réaffirmé encore une fois il n'est pas candidat à cette élection présidentielle donc tey jii le débat n'est pas le quelques quelques semaines qui vont dépasser le 2 avril loolu beneen débat la parce que moi je fais partie d'un gouvernement donc yenn yi mos a avancé trop mos a avancé parce que je fais partie d'un gouvernement. mais li am solo ba am solo mooy. vingt ans yi Karim bokk wax naa en tout cas conseil constitutionnel décision baa ngi nii ñëpp gis nañ ko. Hmm. je veux dire conseil constitutionnel il a appelé les partis au dialogue ñëpp ñëpp dëgg nañ ko fi sax d'ailleurs donc nañ dem waxtaan waxtaan pour xool comment organiser les élections présidentielles di nga xam ne président Macky depuis dix jours loolu lay wax loolu Sénégal yëpp di wax kaay la waxtaan ñu xool naka lañu organiser élection présidentielle. ñu naan du ñu spéculer comme comme wax que ne à partir du 2 avril. non il va démissionner. non vous savez vous savez. légalement légitimement président Macky dañ ko war a gërëm sant ko fu mu jëlee Sénégal ak fu mu indi Sénégal. Sénégal tey Sénégalais. on va pas faire le bilan monsieur le ministre vis-à-vis non je parle bilan monsieur vis-à-vis président Macky Sall on doit avoir attitude delloo ko njukkal. mais il est important que ma rappeler quelques points parce que sàngale wax ñu ko fi wax. ko wax wax fajri il faut que je je je xam nga Sénégal il faut ñu xam aussi les médias de manière générale naka la ñuy fonctionner une télévision doo xëy ubbi télévision xam nga da ngay tegu ci charte yu leer ñu dem signer une convention avec le CNRA comme quoi da ngay respecter les règles qui dans le code de la presse ñu defal la charte nga nangu ko signer ko. bu dee nag da nga yor sa télévision def appel à l'insurrection di appel à la haine di diffuser des images violentes en permanence en boucle c'est interdit l'article 57 et l'article 63 du code de la presse da koy interdire les conventions yu organe de presse yëpp signé da koy interdire maintenant bu fekkee dañ la jox mise en demeure yow joxoo mise en demeure. mais mais joxe une information ah, ah. et appeler à la haine, à l'insurrection non c'est différent. defe naa joxe